salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax rek di leen ziaraat di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér a wér di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan waaye daw luy suñu borom yërëm leen si xaar leen si àjjana fiir daw si ñu feebar tëdd si hôpital yeeg si kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp rawati nañu caabi féetee ginnaaw yàlla suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàq yàlla na waa 4 waa 10 waa 21 fàttewu ma leen bu baax a baax di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar tey ñu ñëw Seras may nuyu ñenn si man yoo xam ne ñoo bokk si man ku si mel ni Maam Saliou bu Nokia ni ko bëggee bu baax a baax di ko ziar Garga bëggee naa la tey ñëw seet si kenn di yaakaaru lamb di ndaanaan si lamb kenn dootu ko présenté Pape nuyu na la. maa ngi lay fay Idi gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed maa ngi gërëm suma ñaari waajur di sant sama sëriñ Seydi Mahamadul Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas di ko ñaanal yàlla gudd fan ak di nuyu waa Louga yëpp di jiital ci nuyoo bi Seydi Mahamadul Mansour Sall ci jigéen ñi ma koy jox Ndiaye Sall Abbas di la ziar Idi di nuyu waa Seras yëpp fii nga fekk tey lépp lu ma am ci àdduna fii laa ko amee fi laa déggee booy fi laa déggee grand fi laa ñaan yàlla dégg dégg paa fi laa ñaan yàlla dégg dégg maam fii nga ma fekk tey dama ci kontaan trop ndax lépp lu ma am àdduna fii laa amee di nuyu waa saxaaf di nuyu waa njagu rëy di nuyu waa jàmm di nuyu waa caar ak caar Njaay di la ziar di nuyu ahlu làmb yëpp di jiital ci nuyoo bi ne président Bira Sène bi xam ne tey mooy président CRG président CNG de lutte bu bees bii ñu nga xam tey yàlla moo ko fi muy Bira ñu ngi koy ñaanal yàlla yan bi oyof toy ci kawam ki fi jóge muy suñu papa aline Sarr di ko wax ni moom it yàlla na ko defal jàmm yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér ndax it nañu jàppale nañu bu bëree baree bëri ci làmb ba yàlla dogal tey bu làmb ak fii lu bëree bëri moom moo ko liggéey ndax bu jëkk mbër daana bëre du jot reliquat bi mu ñëwee loolu jóge na fi paakaa ki jaase ki yat jóge fi wax dëgg yàlla macha allah bira mi fi nekk di nit ku xam làmb koo xam ni pendant 30 ans 40 ans mi ngi ci làmb ji ñu ngi koy dalal jàmm moom it di ko wax ne yàlla na yàlla defal jàmm yan bi oyof euh, tooy ki wax mooy Pape Diagne Seras président des ménagers de Louga waaw juddoo Louga yaro Pikine fere Pikine waaw kooku mooy Pape Diagne Seras euh, yaroo fii di Seras nga xam ne lépp lu ma wax naa la ko fii laa ko amee di ci sant yàlla bu baax di la gërëm idi yow it ngay ndaanaan ci làmb suba ak ngoon guddeeg bëccëg si lépp làmb la di ñaanal ñi tëdd ci prison yi yàlla génnee leen ba ñu delluwaat seen njaboot di ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm feebar bii fi nekk génn fi ba ñu continuer waat suñu làmb ji continuer waat activités yi dëkk bi man a dox ci kàttanu yàlla idi Pape Diagne lan ko dugal si làmb dafa man mbokk nekkoon si làmb moo dugal Pape Diagne waaw li ma dugal ci làmb soo ma ko laajee dinaa ci sawar dinaa kontaan parce que sama papa dafa mënoon a bëre daan ànd Alsaan Ñang la champion de ngin gi neew nga xam ne moo da ànd ak ñoom père Birahim ñoom père Balla Gaye yàlla na ko yàlla yërëm ñoom père Mor Fadam ñoom la daan àndal doon na bëre nag bëre mbapat mais bërewul arène daan ànd ak alsaan ñang nag nga xam ne alsaan moom ku ko wax xam ne moom suñu papa la joo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm toj na làmb ji loolu moo waral ba ba ñëwee Seras ma ñëw fi tamit fekk fi ku ñuy wax Malaw Seras mu ànd ak ku ñuy wax Faxa Baabu ñoom tette ma tamit di ma jël di ma yóbbu stade Iba Mar Diop boobu bi ma ñëwee dama fekk sama papa ñoom Balla Beye di ñëw ci moom ak ñoom Eumeu seen di ñëw fii ci place bi wax dëgg yàlla may suñu dëkk ku fa dëkk muy saxaaf dañuy wax ne reeni bëre foofu la màggee xale bu fa juddoo day mën a bëre yaa ngi gis ku mel ne Omar Seras ku mel Ndaw Saxaaf ak Balla Diagne Samarak ak Modou Samarak ak Mohamed ñoom ñoom Abbas nga xam ne ama numéro boo ñëwee Saxaaf rek dëkk la boo xam ne damay wax ne dëkku làmb la ku fa juddoo da nga mën a bëre wala nga mën a football wala nga mën a mën a mën a mën a mën a rawante lu ñuy wax course loolu nag dugg ba firisu làmb dugg nag lii moo waral idi ma dugg ci làmb bi ma ñëwee nag Iba Mar seetaan ñoom Balla Bèye de ñoom Amath Sène daan ñëw Saalum Faalaay Balde doon fekk ñoom Moussa ñoom sos ñoom ñoom Mathieu Pereira ndaanaan yooyu virisu làmb nag commencé ma dugg nag li may wax Malo Seras tat tat tamit ànd ak man di ma yóbbu Iba job Diop virus boobu dugg ma nag ba tey nii gis nga ko. Pape ban làmb la njëkk a dugg stade. làmb ji ma dugg dugg stade su ma juumul mooy euh, diggante Yékini ak Baye Fall rek tubaabu su ma juumul combat boobu laa jëkk seetaan seetaan Balla Beye de Sallo seetaan Balla Beye Ibou Diop Youssou Faye Balla Beye Boy Kayre su ko doon lim fanaan Yékini bi mu ñëw ci làmb fi fekk 10 août 97 mi daje kàdd gi daje Pouy 2 daje Mor Nguer daje Pape Cissé Tyson 31 juillet 1995 bi mu daje Ngaylum daje Daoud Top daje Cheikh Mbaba daje Alioune Seye daje Mohamed Ali daje Moustapha Gueye daje Toubabou Dior Tyson na gën ma. tax ma gën a bëgg làmb nag mooy Mohamed Ndao Tyson nag di ko ñaanal yàlla moom it yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér ndax mooy bi mu ñëwee ci làmb ji dafa yokk waaye wàññiwul yàlla na ko yàlla defal jàmm ndaw waaw làmb nga nekkoon si amateur ñu xëy un bon gis Pape Diagne nekk manager la mu waral lool waaw dama nekk amateur di ci bari nag ay mbër yu ma doon supporter tey ci làmb tey mbër yooyu nga xam si supporter yu ma doon tey ñu nekk samay xarit ndax tey ku mel ne sa Gueye le Tigre de fas bi muy bëre ak Mor Fadam yàlla xam na ko booba xaw ma ko maa ngi Louga di jàng école mais bi ko Mor Faram daane sax réeru ma après à la fête ma ñëw nag ci làmb nekk bureau ménager Mor Faram nekk suma papa nekk suñu kilifa di nit ku baax yàlla na ko yàlla yërëm li ma lay wax toujours rek di la wax ne làmb famille la tey Moustapha Gueye boobu dem na mu jàgg muy dajeeg mbëri Pikine yi ci doon dajal di daje Balla Beye 2 boobu Balla Beye ñun ñooy ànd ak moom muy bëre ji bii bëre Balla Beye bi mu daane Balla Beye 2 réeru ma sama papa tey lamb dox ba tey gis nga Moustapha Gueye ni ma mel ak moom comme ñu bokk ndey ak baay kon lamb famille ma nekk amateuru lamb amateur mooy koo xam ne bu dimanche jotee day sañse dem stade kooku mbëri ko lamba ko ñor su lamb amee day dem man toll na foo xam ne lamb ñaari ginaar sax boole boole stade damay dem parce que virus bi dugg na ma ci laa ne nag ma war def ci lamb tey ji nag coono bi ma ci dañ nag il fallait que nag ma dugg ci biir nekk manager a jàppale a a gagné dara ci lamb yàlla dugal nag 2011 2012 ci bi ma ñëwee nekk manager mbër mi ma jëkk a yor ci làmb muy fàllu support jam numéro 2 yàlla dogal na mu génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm moom laa jëkk engagé ci mbër après nag ma yor ñoom armée ñoom góor a soog ñoom valdo xale yi nga xam tey ma ko doon ñoom jatli su ma ko doon lim fi laay fanaan ñoom nokki yaa mi ngay wax léegi nii ak ñoom njaga doole ñoom B52 Alioune Mbaye Nder su ma ko doon lim fi laay fanaan defe naa benn baraak mbooloo xale yi fa nekk yëpp ñoom Hercule su ma fi laay ma doo doo doo doo danga dul matal

kan nga si mës a seetaan nga xam ne jëli bi mu daan marqué na la li mu mbapat marqué na la. Balla Gaye numéro 2 li mu mbapat marqué na ma ma seetaan ko mbapatu Max Mbargane daan jugee Samsam euh, yi di seetaan mbapatu Max Mbargane ba fajar muy daan nit façon jël bu ne waaye na kenn ko fa jaaxalu mu papa ka numéro 2 dallu bu yi keroog bi mu bëreeg dallu dallu daan ko dama ko ni dalu daan nga Balla Gaye numéro 2 mais bis ngi ñëw boo toogee daan naa Balla Gaye numéro 2 dañ naan est ce que li nga wax réalité la te loolu ma wax tey moo am dalu ma nga Espagne bu toogee daan naa na Balla Gaye boobu Balla nekk ndaanaan ñoom Tyson Junior ñoom Siré Seras ñoom Bac Njagandoo yàlla ko yàlla yërëm ñoom Issa Pouye ñoom Khadim Ndiaye numéro 2 ñoom Moussa Dioum tey jii Moussa ku tëwoon ci mbapat yi la mii bokk na ci xale tey jii muy Moussa Dioum muy Tyson Junior yàlla ko yalla yërëm di Balla Gaye numéro 2 di Issa di maam Góor Diouf mii tey bii nekk Bawol ñëw na foofu Mbappé Max Mbargane toj ko mais Balla Gaye numéro 2 mooy daan mbëri façon jël yoo xam ni bi ma ñëwee dama ne xale bi kan la ñu ne ma kii mooy doomu Double Less ma téye ci loxoom ne ko yow la kan mu ma Balla Gaye ma ne ko soo góorgóorlu la ci làmb foo woowee sa bopp làmb dana la dégg ak ku mel ne Ama Balde Ama Balde mi tey jii dama ko seetaan ci mbapat mu toj mbapat yi ñu ne doomu Faalaay Balde ma ne ko ah kii de suñu jarbaat la suñu rakk la soo góorgóorloo foowoo fu ñuy dégg mbër dañ la fa dégg parce que am na jom am na fit te jàmbaar la te it ci keppaaru mbër la juddoo te doomi mbër la combat bi mu njëkk a bëri nag yàlla dogal mu jaar ci sama loxo 100000 francs lañ ko fay président sëñ Modou ñaa ko tëgg maa ko topp ni ko doomi Falaye Balde jii ma gis soo ko tëggee toj estade Iba Mar Diop moo ko Njaay sëñ Modou ni ma ko ma koy jox ma ne ko Usu Njaay bu bàcc seeraas ñu boole leen fay ama 100000 mu ñëwee stade Iba Mar Diop keroog président Babou laa woo ne ko demal ci ñaa nga jëli avance bi ñu ñëw gis nga Ama Balde bi mooy lamb muy 2009 wax dëgg yàlla yooy yëpp nag euh, seetaan naa ko dund naa ko daal muy su ma doon lim bëri fi daan ci mbapat it ku mel ne Jatli toj na mbapat yi ak yeneen xale yoo xam seen i rak yi ñoom soq yaa ngi dégg ba ci tey euh, xale yu ndaw yi di doog a génn nii macha allah bari na su ma ko doon lim fi fanaan. am combat boo xam ne daf maa marqué marqué la Bathie Seras Khadim Diallo. waaw Bathie Seras Khadim Diallo tam ma marqué ma mooy sama rak Khadim Diallo ñu doon bokk di fréquenté wu ci garage Aziz Diop Ardo mondial teg si Pikine foofu ku ñuy wax suñu papa Jacques Diène yàlla na ko yàlla yërëm suñu papa Moustapha Diaw yàlla na ko yàlla yërëm suñu papa Yéri Jaxate yàlla na ko yalla yërëm Mama Ba yàlla na ko yàlla yërëm ñoo daan bokk benn garan place ak Max Mbargane Aziz Diop Ardo ak Sidi keroog Xaadim Diallo bii bëre bàcc Seras foofu la jóge ci garage Aziz Diop Ardo bërek bàcc Seras dañu bëre mbapat maam jogo maayee ko tëggoon lamb am coow yaa gisoon nga lamb jooju ñu jógeti fa bàcc Seras bi war a bëre Xalifa Ngiraan Xalifa tey xalifa gis nga ni mu mel ak Bathie Seras comme ñu bokk ndey nekk benn phénomène boo xam ni ni mu def ci mbapat loolu la def ci arène bi ñëw rek ubale arène bi macha allah mais li toujours ci làmb ji continué waat ba romb fi mu agsi woon muy làmb joo xam ni keroog bi ñu ko tëggee wax dëgg yàlla foo saani mbattu mu toj parce que làmb bu jëkkoon mbër ci mbapat lay génne doo dem ci arène pour nga mën a dëgg-dëgg au champion dëgg-dëgg il faut la nga dem ci mbapat yi boo tojee mbapat mën a toj arène mais tojoo mbapat reg bëre dafa am ak màgg bëre am na ñoo xam ne si dañu mën a bëre bàcc seras gu dul rëyul toll na mbëri mais jaaxale mbëri xool kër bii booy sëy tey lamb dox ba yàlla dogal ma dem yor booy sëy booy sëy wax naa ne toujours yàlla na ko yàlla defal jàmm fa mu nekk ñetti combat yi mujj bëre yëpp maa ko engagé yàlla may ma ci yëpp ndam yi mu jeexale carrière am ci man la ko jeexale dama ñëw Gaston Mbengue woo ma ne booy sëy laa bëgg ak Siteu ma ne ko yaa ko teree mu bëre yàlla may ma ci ndam maa ko signé ma ne ko nag bi nga daanee bi nga daanee na la wóor ni Max Mbargane xam naa ko soo ko daanee du la bàyyi bu kib timis la soo ko dàqee bul nelaw day ñëwaat mu préparé wu ni ma Tidiane Faye le professeur de Lamsar ma koy nuyu muy xale bu baax mu bëre Tidiane maa ko signé yàlla may ma ci ndam ñu ñëwati ni Diène Kayré mu ne mënu maa jeexal xale yi ma ne ko jëlal tàmbalaay saabi yi mu jël jéen juuf kaay rek gis nga may ko ci ndam yàlla dogal daal booy sëy moomu tey jii bii bëre baaj séerage yoruma ko ñuy dem tey lamb dox ba ma yor ko ñetti combat yi a bëre maa ko engagé yàlla may ko ci ndam maa ngi koy ñaanal yàlla mu nekk ci Espagne yàlla defal ko jàmm di la wax ne lamb toujours ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xam nga idi lu yàq lamb ji féewaloo bektaanaas moo yàq lamb moo waral loolu clan yi lañu a génne doomu aadama bu ne ci àdduna da ngay am métier. lamb dafa am ñu nekk ñoo xam ne amuñu métier. dañoo xam dem ñoom ñooy jaxase promoteurs ñooy jaxase manager parce que clan ci lañ mën a tudd dund parce que nag li may nag an maamu laay duxulul janna rambaaj du dugg aajana nañu bokk nday bokk baay àndandoo bokk liggéey te bañ a naxante nag gis nga lamb ji ñuy wax wii clos man gaw ma huis clos huis clos ci lamb mënul dem xam nga tax mënul dem mooy lamb ni ma koy wax tey boo xoolee ku mel ne Messi ñoom Ronaldo fële sax naan stade yi nit ñi ñëwatuñ moo tax li ñu war a fubal dëgg-dëgg duñ ko fubal gis nga mbër mi li koy dooleel dëgg-dëgg mooy supporter yi koy poussé nekk ci gannaaw di ko tàccu tey Ama Baldé Modou Lo ñu ne Ama Baldé ma jaay jóge Pikine war a Pikine départ nga topp ko ñu ne nga war a Parcelles nga topp ko xoola ful boobu dem di ànd ak Modou Lo jaaykatu gerte bi di ci lekk yaa ngi dégg jaaykatu t-shirt di ci dund jaaykatu montre bi di ci dund jaaykatu kab yi maanaam tey xoolal argument boobu ak coow loolu facteur de développement facteur la Modou Lo jii li ma ko ñaan moog Ama Balde suy bëre na takk def la suñu papa Robert daan def suñu papa Mbaye Gueye suñu papa Falaye Balde Ama Balde def loolu départ Pikine ndox wuti stade bii di arène nationale Modou Lo doxee parcelle wuti stade xoolal mbooloo mi koy topp boobu suñ ko bëggee rey ci lamb loolu mooy dañuy rey lamb dama ne huis clos mënut a am ci lamb lamb 90 pour cent billet moo ko yor su di perte nga ne huis clos mën na maa dem buñ naxante naan huis clos ñi fi wax huis clos ku ci tëgg huis clos suba doo ko tëggaat. lamb privé la dama loxo boo gis loxo dama ne feccum liir bu neexee nday jaatee ca wagg ya dama wax ne lamb dëgg dëgg dëgg dëgg nañ ko dello fi mu nekkoon sponsor mooy téye lamb jàppale promoteur mu mën a tëgg lamb public bi ñëw accompagner promoteur bi dama ne lamb dee téeméer juróom-ñaar fukki laa la wax billetterie la soo ñëwee am na fi lamb yoo xam tey ji tëgg nañ ko tey boo xoolee tey Pape Abdou Fall combat mel na ak Garga Mbossé lamb jooju bii yi fay na ñaari mbër ya. pap fi ñu tolloon si lamb si promoteur yi ñuy subventionné sa xaalis bi demeewul noonu. dama ne Idi bu ñuy waxee dëgg dëgg dëgg ñu war a wax ci lamb dëgg dëgg waxuñu am na ñoo xam ne xamuñu lu indi ci lamb coowal lamb la indi ci lamb xamuñu lamb waruñoo wax ci lamb mais il faut que ñu ñëw rek pour di taaw yi pour di yaaw yi mais xamuñu sax lamb xool MC Lida góor a bi ma koy tëgg bi may tëgg MC Lida Balla 3 fii ci terrain bën-bën boobaag rajo di wax nii wallaay boobu dugg ci lamb lamb ji nañ ko delloo fi mu nekkoon ñiy wax dëgg ñu téye leen ñiy wax safaan ñu sànni leen fële président Bira Sène bii nga gis nii mi ngi nekk président de CRG de Kaolack pendant 30 ans mosoo dégg benn coow Kaolack ñu bari xamuñu ko fii tey boo ne Bira xamuñu Bira moo tax dama idi il faut la ñu jàppale promoteurs yi pour lamb mën a développer jëm ci kanam a kanam mais suñu bàyyee lamb ji nii rek ay tendance ak ay clan yi wallahi lamb ji day suuxaat rek dellu à zéro ibi ban espoir nga gëj keroog bi ñu koy fay 3 millions dañu xale bi am na promoteur tey bu mag boo xam ni keroog bi ñu fay si si 3 millions dañu pourquoi ñu jël si millions yéen a ngi yàq làmb ji tey na 40 millions ñu koy ñaan yàlla yàlla na ko jik tey mi di dimbali boppam di dimbali ay mbokkam te boo gisee seetaan mu ne Max Mbargane mi xam tey mooy sama manager lépp lu ma nar am ci àdduna tumur boo ko bokk moom yàlla bu te nee damay am boo xam du ci làmb damay dindi max sa wàll ngi nii dama ni mbëri nañu xoolaat seen bopp ñoom it premier manager bi day sonn ci yow di ànd yow ci quarante mille francs ba cent millions li mu moom jox ko ko mais am na soo ko lekkee waxuma la sa carrière mais sa début sa fin de carrière sax day métti del xool mbëri lekk àqu manager yi seen fin de carrière coono yu méttee métti la ñu dund parce que li ñu lekk moomuñu ko yaa ngi ànd ak euh, manager ci quarante mille idi ba ci cent millions nga naan ko tey dama lay jox dama ne uute nag lim la gisee noonu la lay wala de man soo demee waxaale fële sa combat yëguma ko soo ñëwee idi ni ma combat dama lay wax demal nga jël sa combat nga doxal ka nga war doxalal nit ku ne yaay may sa bopp valeur ak dignité su dañeeti ni dara des ci idi ne tey jii yenn promoteurs yi wala yenn ménagères yi yenn combat ñoom ñoo ko doxal seen bopp ñu ne promoteur bi signé waaw xam nga loolu dama koy wax toujours ñàkk fayda mënta passé benn nit bu jógee fa la ñëm dem mi ba jubóog mbër mi ñëw ni la signé yow boo signé d'abord war nga xam li ngay signé ci site internet laay waxee mais lamb daf ma yee ci lu bëree bëri idi promoteur jël na ma yóbbu ma Dakar naaf gendarmerie ci combat bu ma signé su ma xam woon samay sama sama li ma yoon may ak li ma règlement may mën naa sonn parce que dafa ni mbër mi dafa jël xaalisam dem te dañu préparé combat ba combat bi jub si lamb ja yàqu. mbër mi moom it am visa 10 ans ban xale mooy am visa 10 ans fii ci Sénégal tey ak ni dëkk bi méttee nga ne ko da ngay toog mën naa sa mën a téye mbër mu yor visa am di naaw ci avion di ko toppi. membre mi nekk gore muy Ramdaan bi ma ko woo téléphone ne ko delloo promoteur bi xaalisam daf ma yónneewaat un million ma delloowaat ko promoteur muy Fallou Ndiaye muy xale boo xam ne moom it Ramdaan dama ko ñaan yàlla may fanu guddi yàlla may ko wér xale bu dëggu tey su ma xamoon lu ma teg sa may man na maa sànku parce que booy signé xamal li ngay signé pourtant ba ñu tëral ñoom seen i kalaaf di waxtaane seen i mbir yàlla xam na ko la ma ci dugal xarita ma ci dugal mais mënu la sax cachet yu ñu fay mbëri su ma la waxee dëgg en réalité parce que yonent bi ne la kuy fen boo ko sama xeet dama ñëw rek ak confiance su xarit ñëw signé bi ñu woote gendarmerie man la ñu woo léeg-léeg ma jël ñu ménager ñu woo ko tey jii commission règlement et discipline fajar day wuy ji 9h su mbër bi defee dara 9h da ngay wuy ji te soo xamul lu la règlement may man na la sànq kon mbëri nañu delloo njukkal seeni i te xam ne ménager mooy sa avocat gannaaw sa ñaari waajur moom moo lay taxaw moom mooy sa lépp li mu moom jox ko ko ñu continuer liggéey làmb jëm ci kanam te clan yi fi ne ci làmb ji ñu génne ko ci làmb ji mbell mbell yi bari na waaye ñi ciy wax dëgg ak ñi ci xam làmb bariwut wax dëgg ak ñi ciy wax ñi ci xam làmb wallahi boo leen doon lim tey noo bu doon bu doon làmb junni la noo juróom-ñeent téeméer da nga leen faxa sànni leen fële ñi ciy wax dëgg te duñu naxe di ànd ak nit te yàlla tax dama ne loo idi loolu lu jafe la man nit ñëw na ci man ne ma damay tëgg làmb bi mu ñëwee ci man dama ko ndax am nga sponsor mu ne amu ku gunge dama ko ne bu jël sa alal di ko def ko ci doo génnee 2 millions nit booy ànd ak moom da nga ànd moom ci dëgg mais bu ñu naxante nañu waxante réalité lamb da ngay amee sponsor am ñu la jàppale am ay nit yoo xam ne boo tegee lamb feeñ sa lamb mën a dem mais dañuy def huis clos dama ni loolu mënul dem huis clos ak lamb mënul dem man la ma waxoon démb ak tay loolu laay wax bu ñu ko fi tëgee benn combat du ñaar te nañ dem lamb jaay suñ kanam li wax bind ko. waaw ngeen dégg sama gars yi fu Pape Diagne Djilass départ ba fi mu yegg si tey seeti yaakaar si lamb Pape am boo xam ne nag dafa bëri ñu ne ñu moo ko yàq ñu ne Pape Diagne ko Armé Mame waaw laaj nga ma question bu ma neex parce que Armé ak Mame Balla dañu ñaari espoir yoo xam ne yaakaar làmb lañu yàlla dogal Armé laa jëkk a yor Mame nekk sama soppe te dama la wax ne espoir yi tax mu garaaw Mame bëre ak Bac Seras Cheikh Tidiane Bac Seras junior bu mënoon bee bëre yàlla na ko yàlla defal jàmm mooy xale baax keroog maa yóbbu Bac Seras Mame daan ba Mame Balla mi ngi mam bala lamb dox ba sama grand Modou Bey ak Baba Baba Baba Diallo Baba Wade ak grand Lamine Diop yàlla na ko yàlla yërëm estaf ba waxtaan ak Abdou Ndiaye ñu ne mam bala Pape Diagne la lañ koy jox ma ñëw yor mam balla ñu doxal di liggéey ku ne xam na lambu li ne xam nga lamb sport la fola meeku daanu rus ñaari xale yi dañuy yaakaari lamb di avenir lamb mam balla soo waxee combat mu ne wax la Pape Diagne Seraat soo waxee moom mu ne wax la Pape du ma nangu benn promoteur jóge fa la ñëw di boole ñaari xale yooyu jamais de la vie moo tax bi ko promoteur yi bëggee mën leen làmb jooju bu dee maa ngi dund ci àdduna du am parce que da nga yor sa ñaari mbër ñu ne say xarit ñu jël leen boole leen jaxasela ak ñoom dal na tey Burxaan Wàdd ci diggante Colifay 2 ak Zoro moo leen yoroon ñoom ñaar bi mu leen boolee am na kum ci ñàkk te mën nga boole ñaari mbëri ñàkk ñaar ñëpp ki daan man na toog ki daanu bala gi nga ki daan ki daan mën na la ba ni ki daanu nga àndaloon ndax tey boo ci waxoon ak nit tey Talla Diop bu yor armée sama xarita muy man maay moom baaba ak Abdou Ndiaye ñi yor maam Balla di maay ñoom ñooy man tey boo ci amee benn kàddu boo ci wax gis nga tey fi internet toll ak ak vocal yi ñu sànni ko rek ni diw diw la faral tas sa kër maam Balla di xale bu ma yar di ko ñaanal yàlla mu dem ba fay ak 100 millions nee naa combat bi ma gën a neex ci moom mooy keroog bi mu daanee double moteur victoire boobu bokk na ci li ma gën a marqué ndax bi làmb ji amoon muy mbër boo xam ne buy bëre du tiit ndax mën a bëreem di xale boo xam ne li kontaane ci moom dama doon ñaan yàlla àlla xale ci 40 mille ba ci ay millions musuma loo wax ni Pape Diagne mooy sama nijaay la yàlla dogal balaa def dara day wax waxal Pape taala armée ba fi toll ni bu ma la waxee li muy bëre du ko xam xamu ko barki dem moo njaay combat ak fëgga la bi ko prince bëggee dafa ne waxal Pape Diagne Seras lu ngeen juboo juboo naa te na ci xale la ci 40 mille francs ba ay millions mu ne loo wax yaag taala loolu laa wax loolu yooyu sama sama seex yàlla lañ yàlla na leen yàlla lafal cat kenn du leen boole bu leen fayoon 200 millions duñu bëre bu dee maa ngi dund. kase bi ñu leen fayoon moom nga xaw bu doon milliard duñu bëre ah. bu dee maa ngi dund barki xale yi duñu bëre parce que man mënu ma tricher parce que làmb dafa nekk lu doy waar te dama leen a bëgg sama xol bii di ñaan yàlla ñu dem ba ba fayoo ko ay 100 ci làmb non ñaari xale yi bëggante nañ mais def naa ci ñoom ak fexe naa ba ñoom ñaar ñu xaritoo. invité nañ fi Mame Balla armée woote. waaw coow li bari si serveur bi ñoom ñaar. ba nga dugg témoignage. lenn da caa nekk tey armée su may mbër di bëre maam Balla di bëre da koy ñaanal maam Balla su armée di bëre da koy ñaanal fexe naa ba def leen ay xarit parce que tey su doon tey intérêt laa ci wut moo naa fexe ñu fay leen 10 millions ñoom ñaar li ko bëggoon ci promoteur kenn xamul nu mu toll 10 millions laa ci am 1 million ma jël ko yóbbu sama kër mais samay mbër ñoo ma gënal milliard loolu moo tax la combat am. combat am mënul de la vie. ñu jógee fa ñu la muy combat boo xam ne ni ma koy wax toujours xale yi état bi na geesu làmb xale yi sonn nañ armée mi ngi jël combat am fëgale mi ngi bëgga dem dugg deux ans xoolal tey ji combat boobu ñu waroon ko bëri arène nationale ba léegi mënul am état bi xam nga lu ma mën di concevoir mooy toog leen resté chez vous te bu weer dee nga fayee ko ni ko Max Mbargane di waxee nit boo koy wax toogal da nga koy jàppal ci lii mbër yi làmb lañ yaakaar di dundal seeni waajur metti na ci ñoom torop torop mënuñoo taxaw mënuñoo sàcc mënuñoo fen mais tey làmb gi bëgg a dem deux ans làmb amut xale yi bu ñu bëriwul duñu am lu ñu seen kër tey armée fëgg la combat baa ngi bëgg a dem deux ans métti na ci promoteur bi jël xaalisam joxe métti na ci bëri entraîné boo entraîné ba ngoon jot nga war a am loo dund dundal sa famille amoo loo dundal sa lan moo gën a métti dama ne état bi nag gestu làmb dimbali làmb tey làmb suñu defoon benn bloc bokk ndey bokk bàyyi xàccandoo dóorandoo lii lépp doo ko gis mais clan yi diwa ma neex diw laay àndal diway promoteur diway manager loolu moo yàq làmb ci tey damay cité koo xam ni référence la ci làmb su ma koy wax toujours dañ yaakaar li may liggéey ak moom moo tax sëñ Modou Niang wax ja bariwul maanaam wax ji bari wul jëf ji bari na tey boo xoolee lépp ci làmb pendant vingt ans moo ëpp lu muy tëgg ci ay journée xale yëpp di bëre mbër mu fi génn tey ci làmb ci loxoom la jaar laata guerre de fu mu jaar maa ànd ak Baye Malick Niang yóbbu ko ak Mama Ba ni ko jàppaleel xale bii laata guerre tey dégg na daali Ama Balde maa jàpp ci moom ni ko euh, euh, baabu jàppul leen ko mu jàppale ko foo Ama Baldé toll tey ma nga xëccoo ji titre roi des arènes kan moo ko tëggoon du sëñ Modou Niang boo doon lim tey fi ngay fanaan doo ko dégg ci coow guy gi mii combat bi bari sëñ Modou ko teg gée ngi new fu ne yóbbu na ko fa tafaatin dama ni da nga naan lamb jëpp da ngay dégg ci coow macha allah su ko neexoon tëgg lamb lamb milliard mën ko tëgg yàlla na ko yàlla fal cat doo ko dégg ci coow Luc Nicolaï da nga ko dégg ci coow dama ni ñi mën a liggéey tey liggéey déggoo leen ci coow ñi nga dégg mooy wax dama ne lamb ji métti na ci xale yi de am na ci xale yoo xam ne pour ñu bëre tey billet lañ leen di jox sans retour. loolu tamit bëgg nañu taxaw seetlu sans retour dama ne loolu lu métti la tey bu lamb amoon sponsor da ngay gis billet dafa am promoteur yoo xam ne tey jii seen liggéey dafa rëy xam nga billet fa laa kontaan mooy tey mbër mi nga tëgg ko soo paree mun la jox ma 100 billets jox ma 200 billets ci coobareem loolu bañ kenn bañu ko mais tey nga jël mbër ni ko da ngay jël bloc benn ñaar ñett boo ko jaayul verse ko ba jeex doo bëre mais loolu lu yàq làmb loolu ci la bokk mais nag di kontaan li ma la ko wax ci sëñ Modou Niang xam nga lu tax mosul changé mosul soppeeku ni mu meloon démb noonu la mel tey soo ko fekke këram naw ko soo ko fekkee feneen naw ko xam nga lu ko def parce que diine dafa dugg ci moom mu jàng di ku baax lig ni ko laa da nga ko mës dégg ci benn coow dépp mu génn prison ba léegi dégg ci benn coow pourtant combat yi ci ci réew mi tey moo ko tëgg muy Ama Baldé Modou Lo mas ngaa dégg lig ci benn coow déggoo ko ci dara doo ko dégg ci dara loo koy xeebe kon man su def référence ci ñu mel noonu laa def sama bopp mais réew mi duñu nawee nit ci xas nit ci xuloo ci saagante ci wax lu bon duñ ko nawe nit li ñu nawee nit mooy yar ak ay teggin ak baax man damay ñaan yàlla soo fi jugee ëllëg ñu nit ku baax la parce que tey da ngay xool tey làmb tax ñu war a bokk nday bokk baay ménageurs yu mag yi fi newoon tey yóbbu làmb ba mu agsi fii ku mel ne suñu papa Pa Yéri Jaxate ñoom ñoo ñun ñoo gën a bëgg a dund ñun di xale dañuy dem fekk ñooñu kon nañu bokk ndey bu baay liggéey làmb ji làmb jëm ci kanam di féliciter promoteur bu mag muy Gaston Mbengue gis nga bi mu diggee retour li mu def jël Bombardier bi nga xam ne tey dafa defoon retraite andi ko tëgg ko boole ko Balla Gaye 2 mi nga xam ne mooy tàmbalaayal saa beey kan la ci teg Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 loolu dafay lu rafet ñun ku ñëw ci làmb ji di jàppale làmb ñu ànd yow jàppale la képp kuy xeex làmb na nga xam ne ñun ànduñoo ak yow ku bàyyi làmb bi demal nga toog sa ruq ni man bu ma xam ne bàyyi naa làmb idi fii laa la koy waxee billahi su ma la nee bàyyi naa lamb dootoo gis télévision nit lu muy wax na ko gëm dama ni su ma la nee bàyyi naa dootoo ma gis xam nga tax bàyyu ma lamb mooy xale yu ndaw yi ànd ak man yaakaar ma su bàyyi naa parce que man bëgguma ay ñiiroo ay ŋaayoo lu ñaaw xaw ma ko man lu rafet rek laa xam liggéey ci place bi wàcc dem ñibbi doo ma dégg ci dara loo may xeebe amul benn bureau kilifa booy dégg tey ci Sénégal ni fëgg naa ko ñëw naa wax la sama soxla soxlawu ma loolu li ma soxla mooy ne bi jàppale làmb ñu jàppale Euh, jeunesse bi xale yi bëre am na koo xam ne du ma dem ba jeexal te gërëmu ma ko li mu liggéey ci réew mi bari na te doo ko dégg benn yoon ci dara loolu lu baax muy Pape Mayel Diop. damay gis muy def ay gestes yoo xam ne tey ci réew mi di dimbali ay nit wallahi azim waxuma ko pour dara dama ko wax rek pour que pour nit ñu def lu baax lu mel noonu di dimbali ay nit te yàlla tax te bëggul ko ko publier bëggul ko ko wax ci télé bëggul ko wax fenn damay nit ñu mel noonu su ñu leen amee dañu leen di ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fi. yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko jàmm ba lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko nit ku baax la. Pape ñu am combat boo xam ne faaw ñu taxaw seetlu si xale bi nga xam ne dafa nekk ci simple bi wane boppam ñëw si arène bi wane boppam teg la ay victoire nekk si dynamique nga gis dernier mois combat yi mujjee élément bi nii wane si boppam mu di gu Reug Reug diggante mag guy gi tey jii guy gi fan la ko ak Reug ndax Reug Reug guy gi mën na ko daal. waaw dama lay wax lenn Balla Gaye numéro 2 keroog bi mu ci làmb dama ne ñaari xale yii muy moog Lac de Guiers lamb leen dégg bu ñu guddee fan danañu dégg roi des arènes ma boole ca Modou dama daan wax xale tay ba Njaay bi boole ca Ama Balde caatu Faalaay Balde muy quatre yoo xam ne dama leen daan cité tey am na espoir yoo xam ne yalla leen yàlla fal cat dama lay wax lii bindal téye bu ñu guddee fan lamb dégg leen xale bu mel ne François Gomis xale bu mel ne Gora Sock xale bu mel ne Reug Reug ak Maodo rakki Gris Bordeaux su amee jàppale ñeenti xale yii ay yaakaari lamb lañu dama la Reug champion la boo xam ni fi mu toll tey ci lamb yàlla na ko yàlla lafal cat mbër day am xool bu fa tolloo li mu teg bëtam mooy nekk roi de arènes lépp lu ne ci kanamam rek li mu xalaat mooy falankoo gis nga barki démb li mu def ku jël quatre fois champion du monde mu daan ko ci lu matul cinq minutes yàlla na ko yàlla lafal cat mais yaakaaru làmb la guy gi nag moom it da joo xam ni di wala man lay bañ heure boo ne gur gi di wala man bu ñëwee teg ba kanam. njabootu kere bii bëri bàll bii de nee dama jël sama oto taal di wuti stade Iba Mar Diop nee na ma toog ci garab lay dégg ay paanaan cam day bëri ji day daanu rek nee na ma ne tey jii damay teg sama bakkat Iba Mar gis ngeen ni mu def bàll bii de mooy guy gi rëg-rëg mooy favori mais guy gi toujours dafay mbër boo xam ni di wala man lay bañ ci làmb. pourquoi rëg-rëg mooy favori. waaw rëg-rëg mooy favori mooy que da ngay xool parcours rëg-rëg fi mu jaar ak ndaanaan yi mu dajel ku mel ne Giri 2 cent et quelques kilos macha allah ku mel ne Elton cent et quelques kilos allah ak fi mu jaar ak ñoom parce que moom day bëri ci biir bëre heure bu dajeeg mbër ci biiri kale maanaam du bàyyi tant bëre bi jeexut te loolu il faut nga am condition physique bu doy pour mën ko tenir day bëre day xeex bu njëkk daawul xeex de mais mbër yi bëgg naa aussi ñuy def liggéey bi dem Amérique di liggéey comme Reug Reug Reug Reug bu jëkk xamul fu ñuy jëmale xeex mais léegi xool xeex bi mu xeex ni mu jaare yoon moo tax man la mooy favori mais guy gi favori nag teewul ko taxul ni ko muy daan mooy daan mais dama la mooy favori ci combat bi mais guy gi dafa di boo xam ne bañkat la nitu jom la heure boo ko di di wala man non jour boobu day joxe bakkanam combat la boo xam ne daal combat capital la combat bu rëy la GFM ñoo ko tëgg ñu ngi ci doon wax sax beneen combat bu neex muy diggante Moussa Ndoye ak Gora Sock mais bu ñu ko décroché nee naa leen est-ce que dana xaj arène nationale loolu bu ko maawa defee tëj tëj réew mi Gora Sock Moussa Ndoye kooku mooy njarndéem mais daal ñu ngi koy félicité ci combat yooyu mu am di ko ñaanal yàlla ndam yi yokk ndax Sénégal la fa représenté mu gën a jëm-jëm ci kanam yàlla dogal moom it bu delsee combat ma guy gi am ren ñoom ñaar ñu tàggoo ku ne xam foo jëm. guy gi lan mooy favori ci combat lan mooy avantage bi combat bi Reug mooy avantage am ci combat waaw bu arbitre soufflé day diree ku wàcc lu Reug Reug def mu jéem koo dindi soo amee exploit bu ndaw mu jéem ko exploit mais Reug Reug dafa di ndaanaan boo xam ne suy bëreeg yow non soo amul condition doo bëreeg moom de il faut ne guy gi wuti condition bu doy parce que di xoolal ni mu bëreeg Jordan bii bëreeg maa yóbbu Jordan mais dafa lay boo xam ne dafa lay manipuler di la yëngal di la sonal ba xam ni poids bi nga am bu yàggee da ngay am coono da lay vidé te bu lay vidé du bàyyi xool ni mu def Elton maanaam mbër la boo xam il faut nga am condition bu doy soo amul bu doy dëgg am condition boo xam ne da yaakaar ne mën ngaa bëre ak moom ñetti fan mais soo amul condition booy moom ñetti fan non pour nga daan ko du yomb. mbër mu ñuy simple la. Euh, doo ko bàyyi parce que guy gi noo toll tey bu ñaari loxoom duggee damay nit ci maninam doo ko bàyyi muy bërek maninam da nga koy xàncaay li mu man yow def li nga man mais diw man na lii manu li dana mat du mat non bul jox sa loxo parce que maninam la parce que kuy couché 100 kilos 150 kilos 200 kilos kooku boo ko joxee say géño su ci tëyee nga jug nga jóg kooku maninam la nit ak maninam doo ko ci bàyyi soo ko bàyyee mu simpi la noo da ngay jóg. rëg-rëg la mooy maninam. rëg-rëg maninam nee naa la rëg-rëg mbër la boo xam ni foo ko fàkk non mi ngi ci weneen wet gi day xeex day bëre ndaanaan loo xam daal yàlla na yàlla fal cat mais c'est un grand champion dama ne su foowul caaxaanewul boppam foo dégg ñoom Ama Baldé ñoom Modou Lo ci kàttu yàlla da nga ko fa dégg man maa la wax li bindal. dëgg la Pape comme ni ñu cërloo si waxtu jeex na ñu gis liñ fi liñ fi wax yëpp si làmb muy lu jaadu waaw. sëñ plateau bi waaw li ma leen di wax toujours rek mooy liiru jaan maay manager am maa ko yor guy gi sama xarit la am na tur buñ ko bëggoon a ci làmb dama ne wax ne ñuy wax ci làmb ñu bare baree bari man dama yaroo ci keppaaru Paala Diop ak Max Mbargaan ñu yar ma ci làmb guy gi bi mu dee départ ci làmb xam ma tur lañ ko naroon a dee ko riij soo ko waxee moom xam ne li may wax ma ne ko boo lu dee ko riij du turu mbër ar ardo ko tuddee woon menn yàlla na ko yàlla defal jàmm moo daan tëgg làmb dafa teg ñaari nag moo génnee bàyyi ma njoon ñoom ndam si yàlla lang saada joom yàlla ko yàlla yërëm ñoom xaadim njaay numéro 2 Gris Bordeaux ñëpp Aziz Ardo tëgg te ñu bari ñuy wax fi ci làmb ñu Aziz Ardo mi tëgg làmb moo tax man la guy gi mu ñëwee dama ko ne bu tudd sa bopp deeku rij jamono yooyu su ma nekkoon manager maa ko yor ndax mamma moo téye ci loxoom ne ko Pape Sera laa bëgg yor la mooy Mamba Amar naaru Kajoor boobu fekk nag jamono yooyu du ma manager ma ne ko paala mi la yor jàmbaar la paala yor ko après ci la tudd guy gi def ay jaloore ba gis nga ci làmb dama lay ne la ñoom ay roykaay lañu ay exemple lañu parce que man nit du ma ne tey diw baax na suba ma ne diw bon na guy gi nit ku yàlla baaxal la ndax xam nga lu tax dafa liggéey nga di ko dégg toujours moog yaa war a saar booba métti na trop ba tey boo ko dégg micro war a saar lay wax loolu la Siteu def barki dem diggante Max Bargane mu marqué ma damay nit ñi nañuy am valeur di jàpp di bañ a bàyyi tey tëye ñoom bu ñu dem kenn ku leen xaajale gis nga guy gi li mu war a am da koy am Balla li mu da koy am Lac de Guiers li am da koy am euh, nu mu tuddati Elton Alioune Seye 2 ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu ñu nangu toujours nit ni di leen diviser parce que si bu ñu leen diviser day yàq seen làmb caara géej gi kenn gën leen war a nekk ay champion xam nga lu gën a yàq seen làmb mooy division bi ñu leen diviser. fekk naa benn jour Paala Mbeng yàlla ko yàlla defal jàmm keroog bi ñu leen di jubale 200000 la génnee jox leen jooy ne ma dama bëgg lébu yu juboo loolu mooy lu baax nit soo fekkee daay muy tàkk da koy fay muy Xaadim Njaay numéro 2 Baye Mandione Xaadim 1 Issa Pouy ñoom ñëpp keroom maa ngi toog fii ci caari géej ñu jubóole leen paala mbeng def geste bu rafet boobu nañu xool géejawaay kilifa yeeg mag ñi ñu woo leen taaj leen ñu bokk ndey ak baay bokk xam ne ñoom ñoo bokk lu ñu wut parce que lamb li ma toujours famille la tey boo nekkee ci koñ nekk beneen écrit sooy bëri waa koñ bi duñu ànd yow moo tax mbër bu ci ne fexe jàppale goxam ñu bokk ndey ak baay xàccandoo dóorandoo te bañ di féewaloo guy gi Balla Gaye ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu ñu nangu kenn ku ne ci ñoom di leen diviser ma la wax fii démb moom laa lay waxaat tey am na ñoo xam ne ci diviser ci la ñuy dund te nag anna maam laay duxulul janna xanaa xamuñu ne rambaaju dugg àjjana nañu bokk ndey ak baay def la yonent bi waxoon xaqul muslim alal muslim xamsa raddu salaam wa iyaadatul marid wa tibaail janais ijabat daawa tamsitul atis juroom yii na ko doomu aadama gëm di julli waxtu yu juróom fonk sa ñaari waajur foo fekk mbokk gu nga defar ko te bañ di tas di bañ di féewale ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk réew mi état bi fi nekk na jàppale lamb lamb la ñu am mbër yi bu ñu toogee bëriwuñ ren bëriwuñu non dina métti parce que xale yi macha allah am nañu kattan te yaakaaruñu dara lu dul lamb ji am na xale yoo xam ne ña ngay daw dem Gàmbi di bëri ji nañu ubbi arène bi ñu mesurer nit ñi fa war a ñëw ñu takk masque stade bi ku ne xam ne am na ci lamb yoo xam ne koo feesal ñu mesurer ko yenn nit ñi di ñëw yaa ngi championnat d'Afrique bi nii Cameroun xool stade yi nit ñaa ngi ñëw ñu ubbi stade yi ñi bëre man loolu laa gëm mais toog leen booy naan ni toogal day toog ci dara bala ngaa góor góor ci dara bala ngaa gore góor ci dara nañu état bi jàppale xam ni Sénégal jeunes yi fi nekk tey it li ñu bëgg mooy dimbali seen waajur ñu jàppale jeunes yi mais buñ ko deful dana met trop idi Pape li mu lamb lépp lamb la nga dégg kooku mooy Pape Diagne Seras li fi wax yëpp si lamb la tamit bàyyiwul da war fi dara loo xam ne ëllëg si biir dañ ko si xeeb wala dara li mu wax yëpp tamit lu rafet la sa làmb rek moo tax muy wax tey jii ñu nga tàggatoo sa kàddu gu mujj ñu lay sant bu baax. waaw fi may tàggatoo mooy di sant sama ñaari waajur di leen ñaanal yàlla may leen fan wu gudd wu ànd ak wér di ñaanal sama sëriñ Seydi Mamadou Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas yàlla may fan wu gudd ànd ak wér soo gisee ma di ko def mooy bi ma juddoo Hanafiyya laa jànge ka sëriñ Abbas Sall bokkoon nag ci yi nga xam ne si ni ñoo gënoon a léej léeg-léeg ma boo xam ne may war a dàq mais su professeur yi tey demee mu allim yi ci idaara bi muy Cheikh Tidiane Gaye rahmatullahi alayhi yàlla ko yàlla yërëm ak Cheikh Sall di doomu sëñ Abbas dañ leen di wax kooku sët sëñ Abbas la ndax sama papa li ma la wax dafa bëre ba pare bokk ci ñi tabax xanafiya mu nekkoon sëñ Abbas Sall boobu naari bu ñu daan ñëw tey ji kalaame ji ma ni Mokhtar Diagne anta tilmise kasiru muskila non mais bu ñu demee foofu suñu àggee non sëñ bi danaa leen kooku sët la ci kër gi doom la ci kër gi kooku kenn du ko dàq ci kër gi kon loolu moo tax ma ni daal maa ngi leen di ñaanal yàlla waa kër sëñ Abbas Sall yàlla may leen fanu gudd yàlla may leen wér fii ñu jàkkaar lool nii muy jàkka ji doomam sëñ Moustapha Sall moo ko fi tabax def lu ma téeméeri jàkka yàlla ko yàlla yërëm fii nga ma fekkit muy Seras fii lépp lu ma am fi laa ko amee di gërëm suma ñaari waajur di gërëm waa Seras di gërëm sam-sam gi ma yeewoo di gërëm waa saxaaf di gërëm njagure gi ma juddoo di gërëm sama famille yaay sama famille sama famille sama famille yaay muy waa Caar Diop ak waa Caar Ndiaye waa jàmmagan suñuy dëkkandoo lañu maa ngi leen sant di leen gërëm di la sant Idi di sant ñii nga àndal tey jii muy sa maas ak sa papa jite yow soo waxee ci lamb war ngaa wax ci lamb xam nga lu tax ñu bari a xam lamb soo toogoon léegi def ay combinaison yoo xam ne kenn mënu koo dindi di sant waa Seras gépp ku lim da ngay juum di la sant di la gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu lépp lu ñu wax muy juum te ñi ngi jéggul xam doomu aadama moo matul di la sant la gërëm site bii yàlla bokk site yi gën a mag Sénégal wasalaamu waaw Pape man tam ma bu baax a baax rek di la ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ndax uh, tey jii bu ma ñemee ba toog fii lépp ak yow la kon maa ngi ñaanal lu bari bari dool tey tamit man de suma jënd caméraman mu Alaaji Maas di nuyu tam borom ñaari galon muy Maas waaw di nuyu tamit kenn si man muy taalibe Seydina Limaamu bi muy Papa Jiré yal na yàlla defal jàmm tal bi seen naa limaamu du kuy safoo SBT nuyu naa bu baax a baax ziar du maam Saliou nag borom jur ak borom doom day Nokia bu Seras doom day jaxal bu Seras nuyu naa bu baax a baax jox sa wàccuwaay bu ne di def beneen émission beneen champion fii SBT Média kese rek donc nga am jàmm yal na yàlla bu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé doot ko yal na yàlla defal jàmm defal ñu tawfeex di def beneen émission beneen champion fii si SBT Média kese rek donc lay doon Alaaji Maas borom ñaari galon yi